may incha allah arène nationale maa ngi woo ñëpp dugg vraiment leen. balaa ñu ñëw ci wàll yi mais Benz Benz de 10. Mhm. nationale artistes yu mag sax sañu ñu ko jël Benz jël ko. waaw vraiment ren mën na lu ne. vraiment ren mën na lu ne te doomu aadama daa war a gëm te nag euh, li may wax rek chaque jour. amee ñaan waajur boo gisee liggéey fonk sa liggéey. ah teg ko fu mu ko war a teg dooleel. yokk la fit dara ca mun a loolu rek la te bés la boo xam ne dama ci sargal ñaar ñu ma fonk lool daaw dañ ko def première édition defee ko Pikine ci mbedd bi mu débordé xaju fa moo tax ren bu nekk ci dem ci tam bëgguma dem ville bëgguma dem Sorano bëgguma dem Grand Théâtre donc mu nekk fête banlieue chaque année alors jël arène nationale. arène nationale. waaw ah. ah, ñu ñëw ci retour Wally bi nag coow lu bëri lool ci diggante yi nga xam ne ndog-ndog yi xam ne dal na ko du ñu ci ñëwaat. ñii ne dafa war a ñëwaat ñii ne dafa war a toog jël tuuti recul tey retour Wally Ballago Seck ne nan nga ko gisee. waaw ah, sant suñu borom rek. sant suñu borom dafa war a nii la nii la war a demee. waaw nii la war parce que moom moom dul boppam. soo ko yee ko moom. soo ko moo tax retour bi. ah macha allah nii rek la war a demee. <laughs> ñu bëri di soucier wu ci état d'esprit bu Wally Ballago Seck jamono bi yéen ñi nga xam ni yéen a ko jege sénégalais yi ñu bëri di laaj ci état d'esprit Wally Ballago Seck bëgg ko bëgg ci xam dara donc occasion la tey pour ñoom ñu xam Wally jamono bi ana ban état d'esprit la ne. sant suñu borom rek macha allah. Wally moom ku jëfee ci état d'esprit rek mën nañ mën mën mën nañoo wax ni da nga koo sori xaj ndax moom ba muy ba muy ba fit ba mu juddoo mentalement moral ko doon gaynde moo ko moo ko indi fii mu agsi donc loolu mooy dox ba tey rek waaw nañ ko ñaanal daal su doon lafal ko cat kàttanal ko dooleel ko lépp lu mu lu mu bëgg a def rek ndax li ko téye ci musique loolu kese la liggéey ay soppeem sagal ay soppeem teg yóbbu musique bi fu mu fa mu war dem lool loolu rek la ñu ngi koy ñaanal daal suñu defal ko kattan toole mm-hmm. xam-xam may ko wér mm-hmm. gudd fan moom li mu bëgg a def mu def coow lu bëri loolu nag ndax ñu bari euh, bu ñu waxee showbiz dañuy wax almadi tey ñu jël sax roi des almadi di ko dikkee artiste ba Wally demee am na artiste yoo xam ne ñoom ñoo téewoon flambeau bi di ko gérer ñu bëri nag dissocié wu ci Wally Ballago Seck bu ñëwaatee fa mu nekkoon fa lay ne ba tey wala rakkam yi tey jii nii sax dañu ko devancé ak yooyee noonu nga xam ni internet yu bëri ñu ngi koy dissocié wu Benz ana lan lay wax si loolu. <laughs> ah lu ma wax ci loolu lan comme am ci mu nekkoon. pause fale mu pause xam weer ñaari weer teg ci weeru koor bi xam nga ñooñu dem nañu Guinée ba ñan fa macha allah ñëwaat nañu te nit ñi noonu lay demee xam nga da ngay toj fii kii toj fee kii toj fee kii toj fee yàlla na yeneen ndaanaan génn yeneen ndaanaan yi dafa war a bari. ndaanaan yi di génn di yëngal musique bi jëm kanam. mais ku askan bi namoon a ngi nii. mais ku askan bi naka mu ngi nii. ah dëkk bi Aliou mais Ida Ida da nga sàcce. mais Ida da nga sàcce. mais Ida lii la nii. mais mais mais mais li ko waral laala ma fi. saa tët tët. mais booy. borom almadi wala borom boobu. non borom almadi xam nga boog benn kilo rek. mais ah. almadi. ku nekk Dakar wala borom Sénégal. maa ngi ci ah. man borom boog borom almadi borom Sénégal wala. borom Sénégal mais ku nekk xam na ne euh, boo bu dee borom Sénégal ngay dem am na foo xam ne da nga koy moom fii suñu titre foncier la titre foncier wala bala ko sekk la. almadi. ñenn ñi ay kayit baay la ñam ah ay kii mais wàllu bala ko sekk moo am titre foncier bokk. di di conseil fi nga xam ne moo di almadi uh-huh. seen papa ñëw ne tuuti dañu xool ni ci kanam nga xam ne lépp dëgg moo moo jot ah nañ xaar tuuti nga xool seen baa ñëw mais nag almadi temps yi dafa am ko moom na état bi muy muy Momo Dieng baa leen kooku Momo Dieng sama rakk la ku mën woy macha allah ku li muy def bu ne der ñu xam ne daanaan pire parce que Ndiouga Dieng mooy papaam kooku macha allah kon kooku ba mën a woy mais souvent yi nañ bàyyi saytaane Momo Dieng rakk waali la nangul nañ ko mais fekk kaamil fekk kaamil fekk kaamil fekk kaamil mu ngi am ci àdduna bi ah Wally Seck mooy sut ci artiste ci kattan yàlla mooy nekk ndëmba wan fekk kaamil mu ngi am ci àdduna bi daal maa la wax li man Idaly mosuma wax lii mais Idaly dañu gis yi nii vraiment nag na am ay bees nag chaque trois mois fu mu bees kan gan gu la. ah mais sëñ Bada. mais Faramaren waxoon naa ko sànq les gars yi jël si moom Feeling Dakar nee naan Faramaren. non yàqu Feeling ah, Dakar mooy sa boss bi. non waxuma Feeling Dakar. ah Feeling na Faramaren. Wally àdduna la ku ñëw bokk ku ñëw di nga dugg parce que yàlla moo ko cëral loolu. Uh-huh. mu mën a xajool ku nekk nag. moo xam dof bi moo xam keneen ak keneen koo mën di doon bandi fu nekk boo ñëwee Wally defar la Wally day defaraat waali waaliw la tuddul waali waaliw la tudd. mais am na ñi nga xam ne d'accord si ñëw sëñ Barel. ñooñu mooy xorom xol yu bon yi rek ñi nga xam ne dañoo siis nit kuy bokk yàlla suñu borom day wàcce fi ku ñuy séddoo waali balaa ko mi ñuy topp day séddoo di muñalante ku ñëw mu defar la nañuy annulé anniversaire bi jëm bi jëm jëmmi jamono ba projet bi àgg parce que projet bi pour sénégalais yi la projet bi pour fans yi la loolu moo tax ñu annulé projet bi comme ni Omaro wax comprendre nga noonu la demee mais du leneen moo tax tey affaire bi ñu analyser ko li nii nga gis ni du anniversaire soirée rek mais dafa tombeek anniversaire Wally Ballago Seck la 27 comprendre nga tey fii ci bopp la demee mais Wally mën na lu ne parce que yàlla ànd ak moom mu xam ne yàlla ànd ak moom ba pare nag pare kañoowu ko waxewu ko mais gars yi nañu nangu nangu nañ sax peut-être am na ñoo xam ne dañoo am xolu macha allah mooy loolu. loo koy ñaanal sa anniversaire non dama koy ñaan it xam ne man man le 26 démb la woon sama anniversaire. waaw ah, peut-être naa la ko sànq maa ngi maa ngi. nga xam groupe bi. voilà maa maa maa ngi sànq sa invité naa ki nga xam ne ni moom mooy euh, Pascal. ci biir émission bi sama xarit Pascal waa Ndeysaan. waaw ah, kay Ndeysaan ñëw na sax moom itam borom Paris. sama xarit la Senou Daanu te dinaa ko gis fi léegi ñu nuyoon te kontante nga xam ne lépp fi la Faramareen di wax rek euh, macha allah Mariatine maa ngi moom suñu ànd du hasard comprendre nga parce que sama anniversaire la 26 moom la 27 anniversaire am loolu chaque année noonu lay demee mais dafa tombé soirée yi nag comprendre nga ku ma xam-xam ne macha allah. Euh, di ñaan yàlla Wally Ballago Seck am jàmm te day am jàmm ci kattan yàlla lépp lu bëgg yàlla may ko ko di la nuyu seen di la ziar bu baax a baax di xool sa liggéey maa ngi bàyyi xel maa ngi xool rafet na macha allah gën ñaa ñëw sa plateau mais ñàkk jot la mais bu soirée yi pare ba pare allah mardi wala mercredi bu la neexee invité ma incha allah ñëw teg plateau kontaan na jaajëf jaajëf le grand programme jaajëf ba léegi mbokk yi na di gis ngeen ni ni ba léegi euh, ñëw na gaa yi ngi ñëw Balaago Seck ñoom ñëpp a ngi ne mu tudd askan bi di Wally Balaago Seck